suratul mulk saaru góor man de suñ ko jëm makka la salaa sama ñett fukk la mu waaye tamit ci jafe la mu leer si ñoom ñoo tamit ci la yéen yàlla ñoo ko gëgal ci la yéen yàlla ñoo la ban taxawu yàlla ko tamit weesu ko yàlla ko yàggal jëm ko dal jëlal yàlla xam ne ci dëgg dëgg yàlla xam ci dëgg dëgg bakkar ba nga rek ko fal ku ko ci moom ñu tax ñu waxal ko barke di islam na wala di xadir mo fa ko la ga fi sun la mu tabar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أي مرتاح دور من هذا ما تري وتري من رتنا وغيره بسم الله سبحانه وتعالى والجد تدبر الرحمن كراج قيل من أهل الجار يا راهي كراج قيل جلال جلال آخره tabaraka bari na yiw tabaraka màgg na alladi buur nga xam ne bi yadi aji nekk la ci soppandikoom al mulku buur rek yàlla bi nga xam ne nguur ci la xam la nekk moo koy soppandiku kooku ay ñoom bari na de barakatu ak dooleeku ak ak koxe lay tekkale yàlla bi nga xam nag ne mboole yiw yëpp moo koy joxe moo tax muy newle boppam ne koxe na màgg na tabaraka wax na ko ca bopp saar wi de ak ci bopp saaru furqaan tabaraka la fi nazzala ala abdihil furqaan fii mu ne tabaraka la fi bi adihil mulku nguur ñaar rek la nguuru zaahir ak nguuru baatin yëpp ci loxo yàlla la nekk bii wax na fi ne nguur ci loxoom la nekk foofu mu wax ne moo wàcc alquran mu ngi junj nguuru baatin de nguuru alquran gi nga xam ne moo saxal xatte yi xalaal ak xaraam nguuru ba sa kooku mooy nguur ak baatil nguuru saayir la de mooy soppanit bi nga xam ne ci loxo buur yi la nekk yépp ci loxo yàlla la nekk de sa atan la mu ala kulli shay'in ci lépp la yàlla mu nguur ne ci loxoom xam na kattan ci lépp la de allafi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu al mawta dee wal hayaata ak dund yàlla mi nga xam ne moo bind dee ak dund lu tax mu njëkkee dee te dund jiitu nit dafay njëkk dund ba mu yàgg mu soog a dee dee jiitu ndax soqante man yi la nit ki njëkkoon a doon te dafa dee gannaaw ga mu soog a dund gannaaw ga mu deeaat te itam yàlla soo gisee mu njëkk a tudd dee pour lim ci tekki de li yëpp lu wokkum ngir na mu natt leen ayyukum kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet amalin ci jëf soo gisee yàlla bind dee gannaaw dund dafa bëgg nattu jaam yi ba xam ku ci gën a rafet jëf jaami ñeenti xaaj lañ koo xam ne ak jubloom ci jëfam ak ci waxam yépp àllaaxira la kooku moo rafet jëf koo xam nag ne ak jubloom ci jëfam ak waxam moo di àddina rek kooku moo ñaaw jëf koo xam nag ne ak jubloom ci làmmiñam àllaaxira la waaye ci xolam àdduna la kookoo gën a ñaaw jëf mooy naafeq koo xam nag ne ak jubloom ci waxam ak ñuy naam ak jëfam yépp mooy yàlla ci boppam kookoo gën a rafet jëf de lëf la luy gaar rek amut jëm amut yaram mu ngi mel ni yëngu toob dal mi nga xam ne amuñ melowoo mën a gis kon nag naka ko yàllay melale ak bind bind itam noonu ci misaal yonent wax na ci hadis ne yàlla bind na dee ci melaw am xaaf ba mu taxawee rek ku ko gis dee ku foon katam dee malaaka yee ko gisoon dee bañ dekkee ne yàlla lii koo ko bindal mu ne doomi aadama yi ah mu ne ko doomi aadama yi suñ xamee ne danañ dee doo fa fekk ay doomu aadama yi yi ngiri dee ndax duñ mën a sëy duñ mën a lekk duñ mën a naan ngir xalaat dee noonu la rag la moom dee waaye terewul doomu aadama ñoom te terewul ba fàtte nañ ko terewul leen di lekk ka naan ak a sëy day gili ndoom bind itam yàlla nga ko bind ci nelaw sax woo xam ne lu ko gis dund lu soon katam dund lu mu laal nga dund mooy sax ko jibril daa war fii dem ci yonent yi de moom la saamiri yi jëloon duub ci yaa xam wax def ko ci koom te gëloon bari Israël ne leen mooy seen yàlla waaye dee waaye dee ak dund yëpp di ngeen melalee am xaas ak aw fas yëpp loolu ci yoonu misaal rek la waaye ñoom dëgg-dëgg duñu ay jëmm yu taxaw waaye ñu ngi mel ni yëngu toog dal rek ñu lay gaare ak ña la wax yow wowwa moom alxasiis mooma di aji mat ci nguuram alxafoor mooma di aji baal ku tuub na ànd fi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu saba samawaatin juróom yaari asamaan ci baaxan yi di déele yàlla ci bind asamaan yi juróom yaar déele ci kaw morom ma ci bind koy déele ndax benn asamaan laalu ci morom ma asamaan su nekk diggante ma morom ma doxab juróom téeméeri at la te laayam doxab juróom téeméeri at la yaayam bi doxab juróom téeméeri at suuf yi itam noonu maa tara gis ci la ci xalq rahmaan ci bind ak yërëm bi ci yàlla muy ci asamaan yi muy ci lu dul ñoom min tafawutin ak ñàkk askanante rek doo gis ci bind ak mbindeef yi yàlla dara far jëne delloo al basara seet jëme asamaan al tara gis ci la min fu tuurin bën bën de soo xoolee asamaan si li yàgg yàgg doo ci gis xoteeku xoteeku de wala su gën lu mar ji topp delloo al basara bët ba kratayni yoon yi di way liñ xoolal asamaan yoon yu bëri pour seet ci bën bën wala xoteeku xoteeku ndax da nga ko gis yan xale bi dana dellu ilayka jëm ci yow albasaru bët xaasi am bi mu aji torox de lu yàgg yàgg soo xool asamaan ngir bëgg ci gis bën bën wala xoteeku xoteeku danga xool ba lott te doo gis dina wuute booba sama mu xaasi mu aji dogal dara wari seet wala xat fa yamma bind nan sama asamaan bu ñu asamaan aji jegeñ àdduna asamaan fii féete ku yàlla rafetal na ko ci ay biddiw di masaabiya ci biddiw de wa ja'alnaa tan def leen rujooman ñu di way jam li siraatin ci seytaane yi suñ biddiw yooyu waxuma ñu rafetal asamaan rek mooy seen njëriñ waaye su seytaane yi bëggee yuquulu jam asamaan pour bëgg faa fal ca dégg biddiw yooyu ñoo leen di jam lakk leen rek wa antarnaa xadu nanu law ñu leen asaaba saaxirin digalam saaxir te ca alaaxira it safaraan leen di nekk wali la fina war na ci ñaaña kafaroo weddi nañu barab bi ci baram seen asaabu jaanama mbugalam jaanama wa bi sa bon almasiru delluwaay ba dem jaanama xéefar nag yàlla leen paral jaanama leen nekk de idaa ulqoo dem sànneef na leen fiyaa ci jaanama sànneef ñu dégg laa ñaan ko sahiqan ak solkat woy yetta moom tafuuru dana mu wañax takaaru dana mu jege te sama yeesu sama yeesu di xotteeku meel xay si ngir mer saxara yàlla dafay bind ci moom mer dafay mere xéefare ba nga xam ne yàkkamti ñëw dugg bam lakk leen nda dafay mer moom safara be ba bëgg a xotteeku far rek kullama ulqiya bépp bu sànni fiyaa ji safara foof gin mbooloo ci xéefar yi fa alahum laaj leen xasanatuha bëkk nii gi safara laaj ak yedd leen alam yaatikum ndax di ko leen woon na fi ndax di ko leen woon na fi ma aji waa de ndax ab yonent ñëw doon di leen waat waa ñu wax ne bale anaam maa kay xat gaa ana di kaloon nanu na firun aji waa de parce que xar naa tañu wet leen ndaxam way waa de ñëwoon nañ waxoon waxu naa tan wax ne maana sala laa wàccewul yàlla min seen dara ñu doon sundéen yéen yonent yi di laa si dalaayi ndara way nekk ngeen dig réer te du ñu bu dee aji mat su ko defee maraaka yi ne leen nag waa léegi nag safaraangoog waqaale tañ wax ñoom ñëfalee law kun naa donte nekkoon nanu nas ma di dégg aw naa xelu i kenn xelu maa kun naa nekkutunu fi asabi sayri ci warabi sayr de teefal ñoo waxal seen bopp ne amuñ xel ñu ne su fekkoon xam nañu xel kon duñ dem safara rek ba tarafoo tudd nañu di dem biim ci bakkateen parce que xam xal kare yaakaar ni saneer yi ñu naan war a mu saneer de sori nañu yërmande yàlla de ñooñu ngéy nañu ñu ne la ñu ne naka ñaañu yax seen dinañu ragal rabboom borom seen biir xay li ci fàddu ñi nga xam nag ne buñ teewee ragal yàlla buñ wéetee ragal yàlla buñ meetee fi nit ñi ragal yàlla buñ fàddu nit ñi dem ragal yàlla ba di ko wattu saa yu nekk yàlla nañ ci yàlla boole ndaw ñee na leen maxtaratun baax waaw jur nag yow kabirun bu dee aji màgg de ñooñu yàlla dana leen baal seeni bakkaar te yóbbu leen aljanna de wa asirru qawlakum aw ijharu bi kooku lu ko wasal wàcc na fa nga xamee ne yéefar yi dañ daje woon di jëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñu dëkk faqi ak ñaar ñu bokk ci Quraysh ñu ne nañ bëgg di ñu suturlu ci di kaaba ga dañuy wax itam ñaari président nga leen waxee ndànk kat bu ngeen waxee ca kaw kat yàlla Muhammad bi dana ko dégg dana ko ko wax faq fi leen ñaari faq yi na leen ana yàlla Muhammad bi ak ñu nekk fi de waaye daal su ngeen waxee ca kaw ñu dégg ko ñu ne leen su fekkee ni suñu waxee ca kaw ñu dégg ko kon de suñu waxee ci suuf itam danañ ko dégg
buur ne wa asirru buutal leen qawlakum ay waxtaan aw yi ngeen bidal bi ci moom bu ngeen ba wax ca kaw bu ngeen ba wax ci suuf inna wa naka moom buur kawana alimun aji xam lanu di fat ci buur la nekk ci xol yi yàlla moom jéemu di dégg sax li ngay wax yàlla nga comme bidal la ko li ci faqal te waxagu la ko moom xam na ko rek ala ala mu ndax xam ci man xalaqa ka bind nañu ndax ku bind la doo ko xam ku ne ci yéen xam ngeen bindal wowoo moom latifu ak ñeet la mu alxabiru aji xam la mu baat mi fi naka biti de wowoo moom allati mooy bur bi nga xam ne jaara bind na mu lakk ñee leen lan la suuf zaloolan mu di luñ tàggat yàllaay ki leen bindal suuf si ne defal leen ko mu di luñ tàggat ne leen fam soo dox leen ci mën a ci yaay ci wàllam wa kuloo lekk leen ñu def teen ci wërsëgam wan kóoru waaye dellu waaye wakat li lay jëm dafa moom yàlla def yàllaa leen tàggatal suuf si la suuf si mënoon naa nekk xeer wu dëgër boo xam ne du ngeen ci mën a def jeexital dara sebal bu sedd ñëwee seddam dana ëpp bu tàng ñëwee tàngam dana ëpp suuf si mënoon naa mel ni suuf si soo ci taxawee nuur mënoon naa ñaref da mel ni dégg yi mënoon na yëngatu naka gaal yi loolu yëpp su ko suuf defoon rek yéen seen dund dal yàqu yàlla bañ loolu ba def suuf mu dëgër du yëngatoom yéen mu nooyal ko ba nga xam ne su la neexee taxaw ci du la lor su la neexee nga jëkki su la neexee nga tëdd su la neexee nga tabax su la neexee nga màbb su la neexee nga ji su la neexee nga jëkki su la neexee nga ruuj lépp loo yaa ngi def suuf rek waaye suuf nangu na ko te yàllaa ko tàggat ba mu demee noonu moo si demee woon ni gaj yi wala mu demee ni jur gi wala sax mu demee ni gaali géej gi kon naka ngeen di saxe ci kaw suuf tàggatal na leen ko nag ba mu nangu lépp mbir waaye dox leen ci wàllam de dox la ko tukkee la ko tuddee tàggatal na leen ko waaye du saxuwaay rombuwaay rek la nit ku juddu mu nga tàmbali am tukki tukki maa ngi tàmbalee ci biir ba fam fam daanoo te faraguñ ko foofu la tàmbalee tukki xëy ca fan xëy ca bàmmeel ba at yi ñooy mandi yi fay fanaan yi weer yi ñooy farfax yi bés yi ñooy kilomètres yi jéegu noppi boo noppi mooy jéego yi yaa ngi dox nag jëm ci aljanna wala nga jëm ci safara sa bopp dund nag mooy sa capital bi nga xam ne moom la yaxantoo dem nga ko ne dem aljanna wala nga parte dem safara sa xam ne ab bakkan ak àddina ak seytaane yéen ñoo doge ko ci yoon yi ñu bëgg fëkk sa yëpp ci diggante bi noppi boo noppi te noppi loolu ci lu neex yàlla rek gaaral nga sa bopp ci parte ëllëg ci àllaaxira moo tax lim nangu daal mooy di fatlu rek bàyyi nan fatlu boo xam ne dafa sax bàyyi nan di fatlu tey bàyyi ëllëg fatlu ren bàyyi déwén fatlu ren daaw ren nga noppalu loolu yëpp tukki ñu nangu ko waaw kuy tukki laaju loolu bë bëccëg la tey loolu la tukki laaj te kuy tukki ngeen nekk moo tax yàlla tuddee mu ne tàggatal na leen suuf mu di seen waruwaay pour ngeen dox nag ci yàlla jëm ca aljanna su fekkee tanu nga wala nga jëm ca safara su fekkee nag parce nga rek addina jullit ne yàlla yàlla rëbb addina addina daf lay wax déet yàlla yàlla rëbb pour moo yàlla ji man ak yow addina moom lu mu def ku ko xas xas nga sa yaay ñëpp moo leen jub te doy na sax ci tooñ addina jëf jëf bu baax bi ngay jëf ñu naa jëfe àlaaxira la te ci addina la ko jëfe dëgg-dëgg jëfe addina la te adduna lañ ko jëfee adduna gii bu baax ci nga faggoo li nga faggu bu baax naka nag nga xam ne ku yàqu itam ci nga faggoo li nga faggu ba yàqu marché la boo xam ne ci la jaam yàlla yi waxantoo ba tono seen borom ñaa tono aljana jàkka la joo xam ne ci la jaamukati yàlla yi jaamu yàlla ba am seen borom ñaa jaamu yàlla ba am aljana ci lu gën a néew kon nag su fekkee ne mi ngi ci loxol jaamu yàlla bu lii lu baax la su fekkee ne mi ngi ci jaamu yàlla bu yàqu nag waaw lu bon la bon bon nga nekk ci moom mu nga ca mu nga ca toog mu nga ca jàmbat yàq rek moo tax yonent bi wax ne baax na xaral bi nekk ci loxol waa ji yu rek amantum ndax da ngeen a xóolu man fi sama yi kan nguuram nekk ci asamaan an waxtu fa bu mu war a lor jëkkum ci yéen war la ci suuf pour nga am ci loxo te yéen ka muuru gën a mu jaayoo ndax ñun ñu toog ci kaw suuf ñu nga xam ne yàlla ko bind fekk jigéen biir bi tàggatal leen ko ba noppi yéen toog ci kaw suuf di ko moy ndax xamu leen ne su ko neexoon rek ñu daal leen di muural ci suuf ñu mën a muurale ci géej ñu la mën a muurale ci jéeri te waa di laajal xaaroona am amantum am da ngeen a xóolu man fi sama kon nguuram na ci ci asamaan am yor si la bu mu tawat aleykum ci yéen xaasiban jambaraay ndax dag wóolu ngeen asamaan si leen leen tiim yàlla moom asamaanam ngeen renu asamaan si di ko tooñ te bu ko neexoon mu taw leen ay dañu ngeen daal di dee léegi te sa taala ngeen a xam ngeen a xam ay sa nasiiri naka ay waat sama de bu ngeen waadiwut bés dana ñëw boo xam ne yéen ñëpp da ngeen xam sama waat da ngeen xam ne ngeen di wax dëgg la wala xat ka saba waddina alasi li ñaa ñomen xam li way nekk lañ tan jëkk seen te sa taala na koy nekke nasiiri mbugal sama de maanaam dana taddi ci tab waayam taraw ndax dañuy disit nga tey lu jëm ci gannaaw moo xanaa seetu leen ci ci naaw ci jaww ji foo xaw ci ca kaw seen saa saatin bi ñu ngi way talal ñu wagg seen da nga gis ci ci naaw ba mu yàgg mu ne tekk ta talal bëgg yi yëngu tuuti te du tax mu daanu way yàq gis na danañu bank seen i mbagg ñuy tàng ñu bank mbagg yi ñuy tàng ñu taalal ko maa ngi ci jëm seeti jàpp leen walis daanu ila rahman mbara ji yaram jëre xam ngeen ni picc mënu leen a wax ne dafa toŋ ci suuf mënu leen a wax ne dafa toŋ ci garab mënu laa wax ne dafa toŋ ci asamaan te xam ne ci diggante asamaan ak suuf xam nga ne dara teewu ko lu mooy yàlla de ñu ne woon ak moom daf ci maa xam ne li ci li ci lépp la te yàlla xam ne lépp la boo nag dafa bëggoon nga seet ci gannaaw yi naaw nga waadoo ci rek ba xam ne ci def nii kenn la te wéet na te moom rek moo yore jaamu rek amoon na buur boo xam ne dafa am ay xaritam gën jàpp ci kenn teg ko ci kaw moroom yëpp ñoom ñëpp ñëppul ne ko lu tax waaw nga di ko teg ci suñ kaw waaw waxu leen lu tax bu jëmmi bés rek buur bi nekk ci yàlla waaw mar mu seen aw doj galaasam ca teg ñun ñu xool ko rek moom buur bi waxul dara xale ba daal di kot rek xot fa sam dawal daal dem ñolof yëpp ca doj wa day fàtte ca galaas nga indi ko waaw xool jox ko mu naan de ñu ne ko noo xamee ne galaas la bëggoon ñu ne dama gis mu xool ko te buur bu xool xoolab caaxaande lu mu xool rek lu fa tax mu ni mu mu xool ko mu ne leen yow taxoon nag mu danañ ko ci seen kaw yàlla itam ne ndax du ngeen xool ci téye yi naaw xoolab xam ne rek luñ ci ko def kenn la te wéet na te moom rek moo yee jàmm am man xaasa adee taaka la fi huwa moom dun dun huwa moom dun dun aman aman xaasa ana kandi kaaka ana aman xaasa la fi ana kandi kaaka huwa moom dun dun ay leen lañu lakk ñu ne leen yan suukum danañu dimbale ñun leen rahmaani tur yàlla su fekkoon yàlla wàcc bugal kan moo leen di dimbale amut ñu kaafiroona yéen ñi fari ilaa fi quluubi ndaraa ji nekk lañ fi baatil de aman haala ladi ana kan di kaasa yarsuqukum dana mu wërsëgal leen ñun am fekk ngeen jàpp na risqa wa wërsëgam de su yàlla bu teyoon wërsëg joxeetu ko su joxe wërsëg bal bay lajjoo nuur nañu bi wax min sigré ni wanu bóori na ak sori dëgg de wéefar daal baaxoo na nuur ci nar rek te sori dëgg dafa mën yem ci ak dana mu dox mukki ban bi ñu aju dëkk ala yi ci kanamam ah daal moo gën a jiit am na yem ci am ka dana mu dox te yem bi ñu aju xemoo taxawaay xaaral si atin ci yoon bu faq ñu daal jib ñu ngi nitaal di ko séefar koo xam ne dafa am ñaari tànkam di dox ci yoon yu jib di dem yoonam ak koo xam ne ne dafa dëpp xar kanamam di dëgg dëpp di dox ak kanamam ana ko ci gën a jubab dox ci jëkk ci ci jëkk ci moo di xéefar kon ñaareel ci kooku moo di jullit de pour waxal huwa moom la di mooy bu nga xam ne am saa kum fas mu leen te nekk leen ni dara nga jaale tam def lakum ñoo leen sama ak dégg wala saaraat bi wala bi dafa ci xol ak yéen kenn tëgri ak ñoo maa tëgri ak kenn tëgri pour waxal huwa moom am na fi moo bir bi nga xam ne saraatum mbir mu leen fi la ci suuf te te soorona def na fa nga leen day jëm jëm fa moom de waaye xool nga leen wax ñoom yéefar yi na mata barwaadu ana kan bile doxal waaye in kuntum daan nekk yan saa rek na di wéy dëggal moo koy kër yàlla mu ngeen di wax boobu ba tey bi muy nekk kañ lay ñëwati pour waxal inama leel mu naka xam-xam ci bitoon indara aji nekk la fa yàlla wa inama ana naka man na fi mu aji waade la ñu dinañ ci digg jiwaade de wala maaraahu daañu gisee ko gis sa kon mu aji jegeñ ci ab ñu la lees yëpp dina mun a ñu naan par kanam yi ñaa ngi ko faroo yëpp nañu de waxtu la ko waxee ñu wax leen ci wàllu mbokk mi di safara yi leen xaasaa mu leen dugal de ci mu yàlla tudd nekkoon ngeen te daw na da ngeen wedd bii ci moom da ngeen doon wedd ngoog de ñoom na ci yow ngeen nag kun waxal araaytum salatu leen ma in ahlakan yàlla awoon dem xarak na ma yàlla wa man maa yee ak ñaan ak man fi dindi su fekkoon yàlla dafa wàccee woon ci ci nit ñi aw rahimanaa itam mu yërëm ñu bañ ñu dugal te dañuy jiiróo ana ko dana mu musal al kaafir na way wedd yi mën a fadum ci jëla bi mu jaay ñëpp yëpp mu jaay ci mbugal wàccee ci ñu rax lu ñu jëriñ ñëefar yi waaye ñoom ana kuy wax seen diggante mbugal lu yàgg yàgg seen mbugal ma dana ñëw de ku waxal huwa moom rahmaanu mooy ak yërëm aman naa dëggal nañu bii ci moom yàlla ci moom tawakal naa dañ doon fa sa fa sa taala mu ne xam ngeen a xam man wa ta moom ci dalal na ajina ci réew mi di ngir ay bi ndax ñu la am yéen kon waxal araayatum salatu leen ma ina asbaha ndem xëy na maa watum ndox seen xawran di aji ñii ba man yaatikum ana ku dina ma dikke leen bi maayin ci ndox maayin mu daa ji ball de su fekkoon ndox bi waa ball ci àddina fi ci teen yeeg yoon yeeg robinet yi su fekkoon yàlla fa tey rek ñiital ko ndox benn sox ci sax soqa soqam ndox amul ci àddina ana kuy indi ndox yoo fari dañuy indi ko suñu ngorta loolu kay moom mbir mi daal ko délogé suñu ngorta ñu koy silmaxaal seen kilifa yëpp ñu koy ñoom ñëpp xeew xeew ak silmaxa yàlla ne moomu ndox moom su koy indi ndoxam bët amul keneen boobu boobu boobu saar bu ñu ko jàngee ba mu jeex da lay tontu ne allahu rabbul alamin ñu yàlla moo ko indi rek amul keneen ku ko indi